asalaamaaleykum mbokku internet diaspora ñu ñu ngi leen di ñuy di kontaan bu baax a baax di ànd ak yéen saa su nekk ci suñu ay programme di leen jaajëfal bés bu nekk duñ ci sonn duñ ci tàyyi benn yoon ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ak suñu ay programme donc tey ñu andil leen entretien spécial ñu ci dalal nag koo xam ne kenn dootu ko présenté ti une grande dame su ma koy wax bu ngeen ko gisee di ngeen comprendre seet docteur Rose Wardini mi nga xamante ne ni moom mooy présidente du mouvement citoyen Sénégal nouveau nee na moom dafa woote Sénégal bu bees taax ay ci tata maa ngi maa ngi lay fay Fatou di am mbégte bu rëy tey ñëw ci seen plateau bu yànj bi euh, di leen di remercier bu baax ci invitation yi di nuyu nag téléspectateur diaspora bi yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp. ayca ñu ngi lay fay Tata xam naa nag buñ jàkkaarloog yow balaa ñu dugg ci leen bien vrai que fàtte naa leen def boobu information ñu ngi jàkkaarloo ak nag euh, candidate à l' incha allah présidentielle de 2024 moom la ñu jàkkaarlool ni mu nekk la présidente du mouvement citoyen Sénégal nouveau waaye balaa ñu dugg ci mbirum politique dañuy wax ci li nga xamante ne moom mooy mbirum santé ndaxte ñëpp daanaka loolu la ñu la xamee nga nekk mm-hmm. euh, actrice boo xamante ne actrice de développement laa lay tuddee man euh, nekk kuy def lu lu lu bari ci jigéen ñi koy gën a yóbbu surtout cancer bi nga xam ne moom moo sonal jigéen ñi ñu weesu li nga xam ne moom mooy octobre rose balaa ñu dugg ci wàllum politique dama lay bàyyi nga daal di ñu defal benn bilan boo xamante se ni moom la ñu weesu ci octobre rose bi naka ngeen dundee euh, année bi feebar bi mi ngi wàññeeku wala mi ngi yokk ban évolution la am si jigéen ñi. waaw mën nañ wax Fatou ne euh, feebar bi am nañ ci évolution bu baax ndax euh, maa ngi koy wax di ko waxaat man moom suma bilan c'est xam nga maa ngi expliquer toujours euh, bu ñu ma invité ci plateau yi. Mhm. ne leen c'est bien octobre rose dañu tàmm di ko di ko wax di ko euh, féete. Mhm. Euh, ci àddina bi yépp. Mhm. waaye booy seetlu sunu dëkk yi jàngoro bi ni mu fi mel dafa doy waar torop bokkul ak dëkki nasaraan yi nga xam ne dañoo maîtriser jàngoro bi. ndax boo ne salaamaaleykum ñu defal li nga xam ne mooy dépistage jigéen ñi mun a fagaru ci jàngoro boobu. kon nag ñoom bu leen neexee toog octobre ba octobre ci àddina bi yëpp. di def di bruit di def di boucan mais man dama ne. fii suñ dëkk yi nga xam ne suñ loxo jotul suñ gannaaw. dañoo talut a faj ay cancer. kon nag fagaru bi moo ci war te fagaru dañu war bés bu nekk. di ko xëyee di ko gontoo moo tax ma indi appellation boobu nga xam ne moom laa xewal léegi di wax année rose jigéen sunu jigéen yi dañoo tàyyi sunu jigéen yi dañu sonn rax ci dolli boo demee ci àll bi dañu xamul sax li nga xam ne mooy dépistage yi leen mun a fagaru ci li nga xam ne mooy jàngoro bi mm-hmm. kon nag ñun boo gisee ma ne la bilan bi bilan bu baax la Medisol mm-hmm. mi nga xam ne moom laa doon jiite ci santé dañoo wër Sénégal yépp mm-hmm. dugg ci gox-goxaan yi dugg ci àll yi nga xam ne moo gën a sori dem fekk fa jigéen yi di leen di tàggat ci jàngoro boobu ba nga xam ne tey buñ ko déggee dinañ ñeme dem defi li nga xam ne mooy test bi mhm. ndax ñàkk def test bi kat loolu lu grave la mhm. moo tax tey jàngoro bi yëpp ñu moo tax tey jàngoro bi di jeexal suñu jigéen mhm. kon nag duñ ci tàyyi di wax looloo tax ma ne man année rose lay def dinaa xëy ak jigéen yi di gontoog jigéen yi di leen di tàggat ba pare di leen di assister parce que boo defee tey li nga xam ne mooy euh, dépistage cancer ween ak butitu njurukaay bàyyi jigéen yi noonu te taxawoo dafa mel ni defoo dara ndax boo dépisté li nga xam ne moo war a indi jàngoro bi dañ ko war a faj ba dindi ko ba nga xam ne cancer bi du toog kon nag tey sunu bilan wax dëgg yàlla am naa ci mbégte bu rëy parce que gis naa ne tey bu njëkk ba bu nag dépistage jigéen yi daw mais tey gis naa ne foo tourné ñu ngi def dépistage au grand bonheur de ces dames là waaye itam nañ ko gën a yokk ndax mun a taxawu ci jàngoro boobu ndax mun a baare jàngoro boobu ba du toog

gi mooy lan langum politique gi hmm. ñu wax nga né mouvement mouvement citoyen un Sénégal nouveau mom nga woté wa Fatou defe naa boy booy fàttaliko hmm. man suma mouvement citoyen bi du hmm. tay la ko sanc man ko sancee Kaolack boobu vraiment mat na légui fuké at ak juróom wala lu ko ëpp ma commencé woon ko ci mouvement citoyen bu ma sanc foofu pour le développement de Kaolack fa laa juddoo ah gagne ñi interpellé ma ma ah yow docteur do doo docteur yi Kaolack rek yo docteur national Qui mm-hmm. l'a laa soppee tur wa boobu en 2009 mm-hmm. créé le mouvement citoyen pour le développement du Sénégal mm-hmm. loolu li ko laloon mooy dama def social ba ci yàgg ma gis ne xale yeeg ndaw yi jigéen dañu soxla tax ñu taxaw leen ci ay projet de développement man dama yàgg def politique de développement mm-hmm. de politique politicienne xameewuñ ma woon ci politique waaye xamee nañ ma ci social ak politique de développement mm-hmm. ndax dama doon dimbale jigéen yi di dimbale créer ay projet mm-hmm. ci kaw social boobu ma doon def te ba léegi ci tànk temps yële passé nag ba nga xamee ne dama réew mi dafa toll foo

alors un Sénégal nouveau moom nga woote euh, nga daal di samp sa ndënd fas yéene jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoom nekk fas jël réew en 2024 lan moo la animé ba tax nga ne da nga bëgg nekk présidente de la République du Sénégal. Wow, li li ma animé. mooy comme ni ma la wax rek dama yàgg liggéey Sénégal dama di doomu Sénégal juddoo mhm. Sénégal. Mhm. li am yépp Sénégal la ma ko jox kon nag tey war naa delloo njukkal Sénégal mhm. ma yàgg liggéey nag ak samay propre moyen

kon nag tey bu ma possibilité gëna yaatal mbir mi pour indi ay solution dinaa samp suma te loolu laa def alors docteur nga ne un Sénégal nouveau yane changement nga fas yéene indi Sénégal bi la joxé réew mi en 2024 déjà soppi xalaat yi mhm. soppi jikko yi mentalité yi mhm. ci lu ñu njëkk a liggéey mhm. ndax tay da ngay sét xalé yi nga xamné ne perdre espoir tay xalé yi nga xamné ne désorienté parce que boy seetlu sunu askan wi jeunes yi ñoo ci ëpp. plus de 70 jeune cent. yooyu nga xam ne doole la xale yooyu xamatuñ fu ñuy tourné xamatuñ fu ñu jëm. ñu ngi dugg ci gaal yi maara day taali. ku ci yegg tamit am chance yegg na ngay dundee maara day taali condition inhumaine la ñuy dundee foofu. waaye ñi nga xam ne jotuñoo yëg euh, ndeysaan di dee ci géej gi. loolu dafa war a dagg. li ko waral mooy xale yi amatuñ espoir xale yooyu nag lañ bugg a tàggat xalé yooyu lañ bëgg a former xale yooyu lañ bëgg a mayaat espoir dégg nga inculquer ci ñoom benn leadership bu nga xam ne danañ gëm seen bopp danañ mën a toog seen dëkk liggéey seen dëkk dootuñ demati ci gaal yi donc ñu ngi ci soppi xalaat yooyu mhm. soppi jikko yi mhm. une autre façon de penser mhm. ak beneen façon bu ñuy doxalee euh, politique yi jiital ki suñ ndaw yi

ndax euh, li koy tënkee mooy euh, suñu programme li sénégalais fu mu munti nekk mun bu neex. a docteur. rek je pèse bien mes mots. Mhm. mun am éducation de qualité. Mhm. mun faculté une fay

fabriquer suñuy engrais parce que mun nañ ko dégg nga ba pare transformer suñuy produit fii soog ko jël yóbbu ca diaspora bi foo toll gis ne suñ produit mooy jógee fii di dem mais du ñun ñooy jëlee ay produit di indi fii loolu buñ ko defee jàmm am mhm. xale yi duñ demati fenn mhm. jiital ci xale yi nag dégg nga te tey booy xool dañu am am euh, situation suñ situation géographique ak port yi ñu am. Mhm. jege ba taay kii loolu vraiment dafa dafa nek lo xam ne euh, avantage la. Mhm. ci nga xam ne solution boo xam ne am nañ ko ci loxo yi ba tax ne xale yi dootuñ demati ci mbay mi rek. Mhm. te di nga lekk ba suur. loolu ci suñ priorité yi. tey ñu ngi xool xale yi nga xam ne dañu perdre espoir dem xoolal université bi teg tey. pendant que université bi ngi ubbi arène yi mhm. boo xoolee tey yeneen dëkk yi seen jàng mhm. vraiment situation bi moo tax ñun ñu dañuy te yaakaar naa ne tey Sénégal mhm. bu waree ci loxo jigéen lay jaar loolu dama dama ci am yaakaar dama ko gëm donc maa ngi oo jigéen Sénégal dafa alors docteur ndax programme bi tay ji boole nga ci ku ne xam na ne Sénégal actuellement euh, dañuy bëgg dañuy waja a dugg ci li nga xam mom moy exploitation pétrolière pétrolière ak gazière est-ce que tay ji ya ngi préparé yow euh, si sa bir programme lu jëm ci walum pétrole ak gaz. Lolu kenn waxatu ko loolu mm-hmm. kañ moom ma nga ci bir. Mm-hmm. ndax euh, tay chance bi ñi Yalla may moo tax ma la ñun dañoo tok ci mine d'or te xamuñ ko. Mm-hmm. Suñu doom yi nak dañ ko war a xam. ñu jiital leen tàggat leen ci responsabiliser leen parce que li ñu war a gérer kat bëri na torop te loolu richesse boobu yàlla may ñu war nañ ci teg ay professionnel war nañ ci teg ay xale yoo xam ne dañ leen a jàngal dañ leen tàggat ndax loolu rek mun na ëlbatiku la ñu amee ci ay bor yépp bu ñu exploité loolu defe naa ne kenn waxatu ko alors sànq. loolu sax bëgguma ci dugg dama bëggoon yem ci mbéy mi rek. mais mm. loolu ci programme bi dinañ ci ñëw bu baax. incha allah alors damay ñëw rek ci li nga xam ne nga ko sànq mooy les immigrations yi nga xam ne jeunes yi jël nañ ko actuellement di jël gaal gi Sénégal di perte ay ndawam euh, yan solution nga yaakaar ne tey jii buñ ko tegee jeunes yi daañu toog. ci mais wax naa la ko léegi. Euh, di profiter ci occasion bi rek ndeysaan di famille yëpp. Mm-hmm. yi nga xam ne seen doom yi ñàkk dañ si seen bakkan. Mm-hmm. waaye vraiment solution am na faatu. Mm-hmm solution li ma brossé légui rek solution la. Mhm. projet bi nga xamné le euh, secteur privé sénégalais bi def ko muy agro bio vision. Mhm. muy projet bi mala wax légui mhm. nga xamné agriculture intensive utiliser suñuy ressources. muy suuf beeg naaj ndox utiliser suñ jeunesse

maan yi nga wax richesse yi nga xam ne mhm. bëggaguma ko laal pour le moment dinañ ci yowaat ci programme bi d'accord waaye loolu rek début de solution d'accord nooy jàngatee le fait que nguur gi fi nekk gis nañu li fi jot a am fan yi yëpp euh, bar ñi ñàkk presque kenn mënu ko lim sax parce que dañuy à peu rek di lim mais daanaka lim bi ñuy joxe li ñu ñàkk ci géej gi ëpp na ko ñu ngi président de la République dem na conseil euh, présidentiel fële ca région bu Kédougou ci la fa defee discours ni ki démb xamle ne fii ak fan dinañu def conseil présidentiel jëmele ko ci walum immigration ndax gisoo dañ ko xawa a oyofal tuuti. waaw en tout cas dal, euh, ñun li ñu soxla. moy mhm. solution. Mhm. conseil présidentiel bu ci trouver solution. Mhm. salam waaye ñun tamit ñu ngi ci xalaat Sénégal nouveau tek suñu solution di xaar. xalé yi daal dañ ci commencé liggéey sax ba pare. ndax ñun bo gisee suñu devise moy justice équité durabilité dañu jël xalé yi. Euh, l'humain place au cœur des préoccupations mm-hmm. des populations une ligne de def à askan wi mm-hmm. def ndaw mm-hmm. déjà problème bi nga ngi ci ñun nous bu baax te commencé avons de ay solution d'accord conseil présidentiel nous euh, ñu proposé alors dañuy ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy politique bi euh, parrainage Sénégal niveau fan la toll actuellement. ci ah, parrainage Sénégal Sénégal nouveau parrain. parce que mhm. bu nekk ñu laaj ma ko. ma mhm. parrainage bi moom suñu gannaaw. ah bon ah, ah yow tamit Fatou. vous avez bouclé la boucle quoi. Euh, Fatou. Mhm. koo xam ne moom ci terrain bi la mu sa nekk. loolu yaakaar naa ne du du ci moom. ah ñu ngi naan ma social laay def waaye social bi may def tax na ne parenage bi dafa yomb ndax nit ñi ci seen bopp ñi nga xam ne defaloon naa leen teraanga ñoo may one ma am man suma parrainage ngi nii man jënduma parrainage de parenage yu wóor laa am te bouclé naa ba pare xanaa ut lu ma ci yok rek. <laughs> d'accord kon ñoko dégg do Sénégal Sénégal nouveau mom waxatul waxu parrainage pare na ci lool fété na bor fété na boor <laughs> alors dañuy ñëw ci li nga xamné mom moy actualité bi. ñu gis mm. direction des élections problème bi mu am ak le candidat Ousmane Sonko. Mm. Sénat dal di ne leen nañ ko jox ay fiche de parrainage am mais ba légui lool dafa poser problème lool ban jàngat nga ci am. waaw xam nga fan yi la yépp ñu ci ciow di ci wax. Mm-hmm. di ci wax na né euh li nga xam ne décision justice bi sax and na ci mhm. muy Sénat wara a joxe ay fiche de parrainage mhm. euh, yaakaar naa ne bon war nañ ko jox wax nañ war nañ ko jox fiche am mhm. léegi li ki des conseil constitutionnel mu ngi fi bu fekkee ne warut a dem wala loolu moom moo koy moo koy décider mais yaakaar naa ne bon coow li bëri na mais xam naa ne euh, war na mën a jël ay ay fiche am ci Sénat bi d' accord kon daal côté boobu moom moom moo nekk si dëgg. ñu ñu respecté rek. Mhm. procédure administrative bi nga xam mhm. ne war na def tout jaar ci préfet jaar ci gouverneur daa jaar ci eh, dagat mhm. waaw loolu moom comme ni ñu ko defee woon rek. bu ca jaaree moom ko joxee fiche am li ki des.

waaye tamit eh, ñun dañuy toog di xaar rek mhm. la suite mhm. mhm. di ñaan nag jàmm am waaw parce que fitna daal moom soxlaatuñ ko ci réew yaakaar naa ne daal ñu ngi toog di déglu d'accord fitna boobu si laa doon ñëw ak yow parce que boo gisee ñi nga xam ne ñoom ñooy ay partisans wu Ousmane Sonko wala ñi ñi nga xam ne ñoo ëmboon ex Pastef dañu ne ñett de ñoom daal il faut Ousmane Sonko dem élection en 2024 mm. su demulee su naruta dem élection mën na indi fitna ndax yaakaaroo loolu

waaw mais ku ci nekk daal nañ ko jox ak yële fam mhm. euh, vraiment li ci des nag après euh, ñi war a décider décider. Mhm. waaw parce que vraiment euh, candidat yi bëri nañ torop mhm. ah, képp ku ci war xalaat ni da war a mun a dem. jox la sa droit nga dem. def élection. li ci des nag ñu ñaan jàmm rek ci réew mi. ñun moom jigéen moom jàmm rek lañ soxla. <laughs> waaw loolu de am na jigéen ñi de moom. jàmm jigéen moom defe naa ne. <laughs> am nañ vraiment xolu yërmande. te bëgg nañ développer dëkk bi te dëkk boo ko bëggee développer àndut fitna kon nak ñu ngi ñaan yalla yalla wacce fi jamm yalla def fi vraiment suture ki war dem dem. ki war a gañe ñu liggéey sun dëkk. alors ñu ngi gis li nga xamantene mom moy nekk ci presse bi fan yi yëpp daanaka ak tay yépp ñu gis ni que dafa melni dafa am ñuy xalaat report élection ndax japp nga ne mëna am Sénégal. ah man de wax dëgg yalla Ya, man di na am mm-hmm. ci li ma xalaat mm-hmm. waaye bu amee rek ñu xam ne noonu la mm-hmm. taxaw di xaar en tout cas yow daal dafa mel da dangaa pare man pare naa bu yàgg mais candidat yu bari ni nii tiitalu la sax dara tiitalu ma déggloo ma ne la ku mun na dem ku gagné liggéey Sénégal li may ñaan daal mooy ki nga xam ne moo nar a jël réew mi ah changement lañ soxla de waaw yal na ko yàlla teg ci ay loxo yoo xam mhm. yo loxo yu leer la loxo yu wóor la mhm. yoo xam ne dina indi solution. Mhm. parce que loolu la sénégal loolu moy Sénégal bi ñi mérité ñun. waaw Sénégal bi ñi mérité. moy Sénégal yi jàmm Sénégal bo xam dina changer sunu ndaw yi mëna tok fi fii. liggéey eh, dëkk bi naat. koom-koom bi am fi lepp ñu mëna vraiment am jàmm alors <laughs> nee na yow daal fi nga ko teg daal dafa neex yow daal ki ko yàlla di jox suba. Mm. nañu comme yow ni ko Sénégal ah, ah. un Sénégal nouveau yow moom pare nga pour changer côté yëpp. Oh, man ñun pare nañ nee naa la <laughs> yaakaar ne ngi koy mm-hmm. changement bu naree am. Mm-hmm. loxo la a yow jigéen mooy jur. Mm-hmm. jigéen ay jigéen jigéen ñi dañoo yeewu quatre heures du matin. Mhm. bu ngay dem seet piqué nag caaro yeeg Kaolack ak fu nekk. Mhm. ñoom ngay gis dañuy génn di dem di ñefe. Mhm. dégg nga. jigéen yay fal nañ fal suñu bopp. pourquoi pas. tey compétence yi jigéen am le leadership féminin incontestable. donc war nañ mën a taxaw nag laaj baat réew mi. góor yi nag war nañu abal ñuy essayer tuuti jigéen ndax bu may wax changement xolu yërmande bi mhm. jigéen am mhm. jàmm jigéen saxal ci boppam mhm. pour ñu changer suñu réew kon nag yéen yow ak say morom ak ñëpp maa ngi di ngeen ñu taxaw Sénégal nous les femmes Aïcha ma la nga nga wax sa kàddu bu parce que daanaka li ñu ci temps di di sénégalais di tàllal suma qui jigéen ñi mhm. ak bien sûr. Mhm. xam nga nag ñun tamit mhm. derrière toute grande femme y' a un grand homme. comme derrière tout homme y' a une grande dame. kon nag tey eh, xew. Eh, nag ñëpp ñëw vraiment ñu tabax Sénégal bu bees. di ñaan nag jàmm ci sun réew comme ni ma koy di ñaan di ñaan dal ndax loolu lañ soxla. pour développer son dëkk kon nag yàlla nañu ko yàlla defal jërëjëf. ayca jëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax suñu yaay la euh, docteur <laughs> Rose ni moom moo fi teewoon tey dégg ngeen li mu fi daal di wax lépp en tant que candidate euh, à la présidentielle de 2024 euh, ñu koy ñaanal rek yàlla def jàmm yàlla daal di def jàmm yaay booy ñu ngi lay remercier bu baax a baax toute la rédaction de la diaspora news ñu ngi lay remercier di la jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen itam suñu mbokk internet yi ñu doon suivre mm. di leen jox dig daje incha allah fii ak semaine prochaine ñu nar ak beneen leader ci seen entretien spécial. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.